Ladies and gentlemen, comme vous le savez, Marodi sélectionne les meilleures vidéos du Sénégal. Alors, téléchargez vite l'application. Assalamu alaikum. mbokk Sénégal mbokk bitim réew tey leen ñëpp sant ñëpp di baalu ñëpp ak di baalu ñëpp ak mhm. di leen nga xamante ñëwati nañ fii ci émission bi nga xamante ne mooy li xew tey li xew tey nag dem fii ci Mbarodi TV Mbarodi TV di chaîne boo xamante ne macha allah léegi mhm. kenn dootu ko nettali kenn kenn dootu ko wax kenn ñëpp xam nañ ko ñuy baal ñëpp ak di baalu ñëpp ak di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp vraiment suñu am di jàmm yeeg waa bitim réew biir réew Sénégal wërngal képp vraiment bàyyiwuñ kenn daal leen baal ak yéen ñëpp leen baalu ak dugg tabaski bismillahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin waa damay dugg damay dugg gabon rakki rakki mbeng waaw ak Ibrahima Ndoy ñoom ak ñoom Alaaji Malick Si nekk ci mhm. France di rakk seexu naa sunu xarit ba ñu yónni woon fële ci Si mhm. ñooñu ñu baax lañ waaw du nuyu ñoom Ahmed lii ca ca ca ca fële ca Colombie fa ñuy defaree col force yi waaw ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax du ma Aïssa Ba daan aw bu sa mbay ñoom ñëpp ñu leen di gërëm di leen sant bu a a baax du nuyu ñëpp daal du nag naaj gi nga tey ji mhm. procureur dañuy baal procureur nag Bassirou Gueye tey da nga nuyu may waaw ah, daf ñu war a may nag ñu wax ak imbécile ci réew mi wallaahi bari nay xaj ci mi bari nay doomeeram bas nag il faut may ñu ñu wax ak ñooñu ndax réew mi ah réew mi mu bëgg a dafa war a am ñu mel ni ñun wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ay xaj la ñoo ki doomeeram daf yi fi xaj ak yi fi doomeeram waaw ñu ne ñu wax ne eh yi fi doomeeram ngeen def war leen ko def lii ak lii ngeen war a def lu tal ni tabaski Basiru Gaye nga may ñu lu tal ni tabaski waaw ponkalum jëla ko ñaan sa baay ba nga juddoo sa baay rey la xar waaw di la teete ba nga mag nga dem ba nekk ponkolum nit yàlla la may la teraanga muskalaf tabaski jot nga ne fi ñokk sa nday na fi ñokk sa baay dem dem jëndal sa gel xar wallahi sa yaay gel xar wallahi sa magi gel xar waaw sa baay soble sa yaay ndax sa baay sax am ah, na soble kay waay ba ma kay looloo jar laaj baay sax am soble looloo jar laaj xanaa loo bon bon bon bay seerul bay 12000 nga jëndal ko sa baay mu yuuxu ci sax sa baay am lu mu na sama doom jee jënd waa jëndal sa say gel ay ay xar ay bëy di di tiitaru ñu eh, naan suñu faro ñu ko jëndal di ay ñu ne Baye Moussa moom ya. Baye Moussa moom seex la temps yi moom yee Baye Moussa jëndalul baayam dara jëndalul baayam Baye Moussa du gat du dara Baye Moussa moom du gat du ah. nit du dara su doon may Macky Sall nag bu tabaski jotatee dañuy jël célibataire yi tekkul dara ci réew mi dugal leen ci kaso bi ba tabaski ah. jàll waaw ah, wurumbal lañu war wut wurumbal wut benn wurumbal bu baax loolay dëgg ñun fa képp koy sal ndax célibataire du dara du tus tekki wuñu dara am yàq la def ndax xam nga ne Baye Moussa mi bu jëlee gelam. waaw moom moom moo ki nga xamante ni Tidiane. Eh, ban solo bi la waaw Fass Mbaaw rek. waaw waaw Fass Mbaaw bi Fass Mbaaw. dégg bi soo wane fi rek la ko laaj. laaj bii jar fanweeri junne lu teg. te yaayam la tuul. waaw te yaayam jël sax ay mais maanaam. wëñ wëñ pulatu wëñ bu ko waaw loolu mënu ko jënd ay laxas mu jënd soo wane fi xam nga loolu loolu loolu ak xaj ak ngaj ak ngaj weesuwul lii. dafa ñaaw doonam ngaj weesuwul lii dem sab gel nga jox ko soo wane fi rek bu jar fanweeri junne sa yaay mënoo ko jënd pulatu wëñ wu ñaar fukk lolu do meram ko def jël sab gel jël ko jess ner mo jël sab yaay ab xarsum ñaaw xajay def lola bu nit ñi nak war nañu seet sen bop seet nañu dundé bo weet ma jotté jigéen ñi di di do meram nit ah jigéen ñi eh, ay do meram la jaay du jigéen ñi de dañuy do meram bu tëgg gi jotee du jigéen ñi dañ koy yombal wa dañ koy yombal nag seen sen seen njuppali waaw dañ koy yombal de saa yu day melni rek day melni rek bañu bu fanan waaw dañ koy joxe nu leen nexe rek pour encaisse wasare rek waaw lola tawit fee da ko jara feet wi feetub diina la bëgg nañ ci nga sol lu baax bëgg na ci nga baal wax waaye na la lew doomu waaye feet bi dadul dadul nay na la lew feet bi dadul jees neer waaw tabaski du jees neer wallaay wallaay tabaski du du du sava naturel waaw waaw tabaski du ay fóonante même bu sava naturel du jees neer nay li la lew man li la lew laa bëgg mu doon ko waaw ah, waaye na xar daf ko xar rek dëgg dëgg daf ko xar mu normal wallaay mooy wax nit xaray yoon na wallaay naturel yàlla da koo bëggul sax ba nga koy natureloo waaw gis naa ci borom kër yi way di nag ñàkk fayda dem ba ca daral ba ànd ak sa jabar waaw yoro lu dul 40000 mille waaw ànd ak sab jeeg mu dem ca ca ca laadum jabar ja jubal ca laadum ba na ko ndijaay xoolal bi ndijaay ju ñew ñak fena la xarmi ya, mi ñaata pol bi na ko joxol 650000 cent xamna 40000 na ci posam mu ne ko nañ dem ci xar pol pël bu mu laal jabar ji na ko bëgguma bi boy jënd xam nga lu ak jabar looy ànd ak jabar waaw nga ànd ak sa jabar xam do dem yow nice ah, li ne sa pos nga gennako wallaay jënd sam xar kenn meloon ni sëñ Modou te xar nag dañ ko ku ko indi ci kër da ko war a sant wallaay wallaay eh, waaye am na ñoo xam ne seen xar nag jot ñoo duma am na ñoo xam ne indi wuñu xar xuur ak bee jën la ñuy kër gi lay bari la ci xuur bee jën loolu loolu loolu pour lan kilifa nag yoo a jël a tele waaye xuur ak béjjën loola boo ko indee ci kër ga loola loola waa kër ga def ah. wala sax njaboot lu ñu la mënti wax yaa ngi koy mérite man nag kër Mbaye Fall danga koy mérite kër Mbaye Fall sama koñ waaw ah. gis naa fa kër goo xamante ni kër gi yaakaar la ak ñun mhm. duñ tabaski baanu xurum béjjën lan xuur ren dootuñu ko xuur xuure xar yu bare yoo xam ña ngi ko dajale daf ko di koy xaw ma doon ko muusal xaw ma daf ci pombiteer bu doy ah, xale yi sëgg ci moo tax xale yaa ngi mbëkkante koñ ba hmm. xale yaa ngi mbëkkante rek comme ay comme xar ah, ah, eh, xeex kay mbëkkante normal waaye jënd xar woo xamee ni ay sept mille cinq cent dix lu bëgguñu lu lu yomb. mo ñak fay da leen jàpp. man gis na ku jëm xar xar mo xamanteni xar mi day walis. walis lan xar mi da ñak doole ba bu naree mbee day walis. déedéet kay mo oh. xar ma ci biir ñu ngi ko roof xamanteni ni ne du ko gis wa wa gay yi duñ koy gan ñëw na gan na ay alaykum mais tonton Samba Samba Ndiaye li walis ci ginaaw la la mu ne waaye sama benn copain mo ne foofu way day tuux <laughs> fek xar bi moy bëgg a yuuxu du mëna a yuuxu dana baat bi la waaw waaw baat bala baat xar maay dé xar moo mo ñariñ biñu ñu reyndee nga deg na wi wi wi wi wi wii da koy appel. wi wi wi comme sirène yoy top Macky man man man muy wo morom motaar yooyu topp Macky Sall mu ngi melni man muy wo morom la ilaha illallah mo yow. ndessane am nañu sen tabaski neex am nañu sen tabaski naqari. ren nak tabaski waroon na mën neex na la ren xari bari na. mo yow ya? ren xar yi lamb lamb lamb gis na ben peul na ma jëndal bi ma may la bi ngani man ko ngani mo <laughs> munu iya. ma jëndal bi ñam sa di ma may la be dañoo foofu buñ waxa ñu li xar. nañ ko yombal ñëpp am ci ah. xar yi mëna yomb waye lamb gi moom baax na mo lamb ren gii. Eh, da ci baax. baax na ci ren de rey naa. ay hmm? bor di eh, eh, heures rey naa. Hmm. ma toog mi reyaat ben benn. Ah, da ngay rey rek. ay 5 heures yooyu mën na mee yàpp tamit lakat waaw benen da ngay génn rek 12500 ah, rek pël yi jox la ben 12500 la ndax dañu ko tey jaaxle nañ. jax tak la ñu ngi bëgg a delloo xar yi di laaj nii. célibataire tamit am len jom. am len jom ngir yalla liñ len fi won am len jom. imbécile yen tekkiwu leen dara ci réew mi yéen procureur tax man egguma fa ma war a yegg sax di sóoraal lu bari ci réew mi di bañ rek yéen a a xam daf ñoo war a may nag Bassirou Gueye nag war na ñoo may benn fan rek dëgg war na ñoo may nag procureur de la semaine semaine semaine rek nga bàyyi la imbécile mi rek waaw doomeeraay mi rek nga amuñu benn billaay amuñu palte amuñu place waaye nice mm-hmm. gis naa xar ba tay mm. waaye am na benn xar bu ma gis mm. kër ñum xalifa khalifa men mi ngan ngan lu fi cameraman bi nga xam camera porte Maurice waaw xam xalifa xaram ma ne bam mu ci xëppee vinaigre hmm. xar ma gisatuma ko kon du newna nga ne ah, xar ma la dama ñu ci kër gi ne waaye yéen kaña ngeen fess wala janax ngeen fess <laughs> wa khalifa momi itam ray nañ ko ba fess ko do ko ci kër yàq deroon di ci def mari xar mi di ma xool man nga ni te dee ndax gatch xaar ja boole xar ma ñoo ko fess ba pare mu di ma <coughs> xool déedéet kay ma ne waaye lii xar la wala lan la ah ak ni xar yombe waaw xar moom loolu ñàkk jomam hmm? ren célibataire dañoo waroon exiger ñu jënd xar kenn ku ci ne par la force jox waaw par mooy dëgg ren kenn ku ci ne célibataire bu ne da ngaa war a jënd xar xoolu marié ko jox xar ma loolay dëgg muy sa mbokk mu nekk nekk sa mbokk ku ci am célibataire muy gone mu nekk mag am nga rakk bu am jabar nga jox ko a nice man wax dëgg yàlla dëgg yàlla ëmb nu mu mettee jurom ñent wër nga nampal ay at nek sa wéne yaay nañ ko mañax mañax diko saw diko ko guddi di ko saw diko ko guddi sa yaay bopp bi metti muy muñ di la gàddu di la bot nga dem ba ponk ponkal jënd nga ngam xar jox ko sa gel na loolu mom xat wessul loolu doon doomee ram wessul loolu doonu xat doonu imbécile doonub doomee ram wessul kuy def loolu ñaawna na mom ku koy def ku ne jappal ne xaj nga xajala tane doomee ram nga kuy daal dayu xaj boo ko kooku teygal lu xonam kurpañ bu dayee jëram ngay day xaj yaakaar nga wallahi kuy day xaj boo demoon ci maara waaw mooy la ay dayu xaj mooy def moo ngay boole ci gàllaaj soxla naa man day xaj waaw day xaj mhm. boo xam ne imbécile la moo xam ne nga dal waaw di dem nii mu mu jëndu tabaski ak yaay jox yaayam waaw ñu solo jat bu daye jël daye am nga dayu xaj seetali loola xaj la ndaka day xaj yomb na xaj kay yomb na dayu xaj yomb na day xaj ju jeex ci réew mi jarul ngay seet xaj mooy seetal lu célibataire rek wamalul mel na njëriñ këram rek nga ñuusum ngad tépp boo dayee jël bu doxote bu doxote jël am nga doxati xaj ay way sa bu dee am nga day xaj bu doxatee am nga doxati lolu tan la waaw waaw waaw kon yéen ko déggandoo ah xam nga dara laay jéem dara nag ah jug seen bopp ñàkk nañ booy jëndul sa yaay xar sax nga japp ci macaroni bi waaw ah, deug deug wala nga jëndal sa yaay wala pop wala pomme de terre wala liibaru soble pop kit machine wala yaay di debbu sax ba ci joy mu lay ñaanal waaw deug deug ah waaye dara dara rien yaay yaa eh. vinaigre bu ñu vinaigre xar mi sax ah, Ayo ay yow lagi ma iya, ada ada gi ada ada marut. waaye ada dama dara ada ngi toog ada lay def ada di bëlëf ada mer pour ada dañuy mer ada gel ba ada ko waaw. saya sa yaay ada lum la ada nga may ko. sa yaay ada sa bu ada ñu yóbbu ada hôpital faj. ada bu jar ada wax. yow ada yaay feebar Perlan. jëndal ndem Perlan. asafurlaa. nga ada ko benn ada waaw waaw ada asafurlaa li ada noonu la ada dafa naturel. ada lan pour ada jar astafurlaa merde waay man naa su continuer émission bi naa fi wax musiba waay waxal musiba non non man damay yem wax musiba man pare naa ñu may rek Bassirou moom nañu may Bassirou Gaye dimbali ñu rek yàlla dañu moo ñaan may il faut ñu wax par réew jeex jàppale ñu Bassirou Gaye ku baax nga nag waaw kuy liggéeyal réew mi nga ku bañ yéen waay dara nag sax rek dara nag sax rek fi mu jël dañuy ah, jéngu nag ah, ankay ah, débat dañuy jéngu Bassirou waaw waaw dañuy jéngoon teg moom léeg-léeg ñu jéngoon teg moom nag waaw waaw foqati loxoom foqati waaw dañ koy waññaar loxoom dañ koy waññaar jël mu bañu ñu def li ñu war ndax ñii fi ne fii ak ñu mel ni ñu nekk ñu fi teg seen lu bon réew mi du correct. wallaahi ay xaji kese la réew mi dajale. wallaahi am ci solo paar woo xam ne du nit dara. waaye nag am na ci célibataire yoo xamante ni ñu ngi def liñ mën ak luñ mënul. non am na ci jàmbaar seen waajur am na ci jàmbaar. ay jàmbaar dëgg am na ci ñoo xam ne waaye jàmbaar lañu. bilaay walaay ñoo xam ne jéemuñu dara seen ne dañu na waaye taay temps bi doxul quoi waaye waaye dëkk bi doxul quoi non doxul muy doxee imbécile boo na dox boo waaw yow yaa doxul dëkk baa ngi dem dëkk wallaay dëkk baa ba mu demee yàgg yaa na yaa demul dem di wéy wallaay wàcc na la fi yow góorgóorlu leen wallaay wallaay maa ngi leen di ñaanal nag tabaski ji di ñëw ak jàmm yàlla nañ ko fekk ak jàmm amiin célibataire bu ci jëndalul yaayam xar mbaa jëndaloo sa baay macaroni mbaa poto motar mbaa buteelu breger waaw mbaa gën gu ñuy dëbbee nokkas waaw dinaa toj sa lu bon oh. bul saaga Basiroo tax bul saaga Basiroo ni ko war nañ ko ay jàng yoo xamante ni bu ko defee mu bàyyi ñu Basiro Basiro Gaye. bu baax la Basiro Basiro Gaye. bu baax la ndeysaan Basiro. yéen xalaat li ñu ne waaye seeram war naa doon nga bàyyi ñu nag Basiro Gaye waaw defal ñu benn bind rek. waaw waaw ba taa xam rek yónnee ñu ko. ah waaw waaw waaw leen toj lu bon ñi ñu bon ñu. waaw waaw ndax ñu bon ñu dañoo war di toj seen lu bon. waaw en attendant. waaw waaw am réew mi nag dafa soxla nit ñu baax ci réew mi. wallaahi Sénégal dafa soxla nit ñu baax ñuy doxal dëkk waaye soxla wu ñoo xamante ne ñoom yàlla for dëkk bi waaw di yàq dëkk bi ñoo ko moom ku koy yàq dinañ ku koy jaw ah, bul saaga bul saaga Basiro Basiro gay nii la waaw del way rek Basiro ko sant gërëm ko de kii kii di waay nii wallaay wallaay bu moom xam ngeen wala wallaay kon ba na xamul xamul ndeysaan Basiro Basiro ku baax la waaye boo ñu bàyyi woon ñuy saaga ñu bon ñi ci ngay gën a baax Basir boo ñu bàyyi woon ñuy saaga ñu bon ñi ci ngay gën Bas Bas Bas yow itam jërëjëf jërëjëf kon nee tey émission bi nga xamante ne nii mooy li xew tey fii ci Marodi TV waaw waaw yéen am jom am fulla am fayda tabaski bii di ñëw wallaay comme ñoo ko waaj waa waxee rek wallaay ku ci jëndul sa baay wala sa papa pombiteer wala makuroon uh-huh. wallaahi ah maa téegal déedéet hmm? naa def waaye hmm. ba déwén bas ba tey bas bas dimbali waat na leen kon nag jërë ngeen jëf lu ngeen am sant leen ko Basirou Gueye waaw daal bu ngeen dagal sant leen ko Basirou man maa ngi jar jërë ngeen